foo fekk ñu naan man maa ko moom man maa ko moom di politique ñun ñi nga xam te ne bëgguñu woon def politique toog ñoom ñu ñëw diriger ñu toog suñu kaw bopp di wan na ñoo ko moom te moomuñu dara dañu ñëw jël suñu alal quoi parce que ñu ñoo ko moom. loolaa tax nag ñu créer mouvement ànd defar ndakaaru parce que ndakaaru bëri na ay yàq-yàqu seetaan nañu gars yi ñëw yàq dara baaxutu fi quoi kon ñun suñu rôle mooy comme ñun ñoo fu dëkk ñu ñooy doomu ndakaaru. dañuy jóg rek jéem a seet nan la ñuy créé waatee ba defaraat Ndakaaru loolu laa ñu a ñaan nañu yàlla un bon jour ñu dem jëli ci sax maire de Dakar bi parce que ñu ngi seetaan politiciens yi ñu ñuy jaay affaire yu yeewu te di jaar suñu kaw dem ba yaakaar ne ñoom ñoom moom lépp ñuy séddoo xeex xuloo lu ne nga koy dégg. kon ñun nag il est temps pour ñu ñëw jëlal suñu bopp lu ñu moom quoi suñu objectif mooy dem jël ci meeru Ndakaaru bële. actuellement bon bokkuñu si benn parti quoi franchement. parce que dañ créé mouvement bi tuddee ko woon mouvement ànd defar Fass ñu dem ba affaire bi yaatu am ñu dëkk Grand Dakar Parcelles Kër Massar ñoo ñëpp bokk si parce que peut-être gis nañ ci seen bopp quoi ñu ne nañ ko yaatal daf ko ànd defar Ndakaaru pour l'instant nañ toog ñu ngi defar nag quoi parce que olof nee na kuy yor du sëkkat loolaa tax ñuy bin bin rek parce ñu ngi si yoon bi di ñëw quoi. si ñun dañuy yëngu si développement quoi parce que dañuy toog xaaratuñu gouvernement xaaratuñu kenn. nañu dañuy toog dajale lu ñu am chaque fin du ñu cotiser dajale ko lebal ko ay nit ñu ram liggéey ji fay ñu jëlaat lebalaat ñeneen ñu dem liggéey ji fay actuellement si loolu lañ toog parce que xaalatuñu benn politicien ñun dañu fas yéene jub pour demal suñu bopp ku si fekk si nag ñu jël. appel bu may lancé waa Ndakaaru mooy dam leen wax rek ñu xippi seen bët te xam ne affaire bi ñun la ñun ñooy borom Ndakaaru ñun ñoo moom Ndakaaru te Ndakaaru suñu alal la. appel bu mu leen lancé rek mooy waa Ndakaaru yëpp nañu dajaloo gën a ñëw parce que lii bëri ko si mbarta la pousse ko mu dem ñàkk pousse mu dem waa ñun foofu lañ toll.